pour population Grand Yoff yi fas yéene kaa jox centre de santé yi ak poste de santé yi ma tudd léegi matériel bi docteur Gaye wax na ko cité na ko euh, représentant fondation bi répété waat na ko léegi dafa mucc ayib euh, matériel bu baax la bu am solo boo xamee ni si ni euh, fu mu nekk nit ñi mën nañu xam ni am nañ ay soins de qualité yu leen di xaar yi ñu soxla actuellement ci affaire dialyse comme ni ko docteur Gaye waxee ci matériel chirurgical ak ci yeneen yëpp hein, ñëw ni tey fondation bi jagleel na ko commune Grand Yoff ñu leen di remercier bu baax a baax euh, Basirou tontu na léegi euh, euh, représentant fondation bi ci li ñu yéex a jote matériel moom lim ci lim ci li ko ci soxaloon mooy matérielu Covid bi ñu yéex a joxe effectivement war nañ di gaaw di joxe matériel saa bu disponibilité waaye moom li ko Basirou waxee rek

Euh, ci structure de santé Nous avons distribué matériel de protection pour personnel de santé donc amul de manière continue nous ngi renouveler matériel consommable euh, xeex bi muy masque muy euh, détergent muy donc ONG bi bi ñu ko Covid yàlla na gaaw a jeex parce que xamuñ xamuñ kañ lay jeex mais de toute façon ñun ñu ngi ci def li ñu ci war te boobaak léegi ñu ngi ciy góorgóorlu euh, de manière générale nag ci affaire santé effectivement aussi témoignage euh, dama koy def comme gay parce que euh, quand même maire bi muy laaj pour jot commune bi en 2014 wax dëgg si yàlla dafa Basir wax na ko dafa amoon programme santé bu mu bu mu sur la table bu ambitieux man bokk na ci li nga xam ne si sax euh, jàppale woon naa ko nee naa ko lii boo ko waxee ni da nga koy def effectivement euh, jar nga jàppale parce que man santé laa xam je suis médecin depuis 32 ans donc euh, luy indi luy doxal santé wu population yi nga xam si Grand Yoff quatre cinq cent mille la ñuy wax ak plus de cinq cent mille ak képp ku la képp doon di mën a dimbali ci santé ñun dañ koy dañ ciy ànd ak moom effectivement Euh,

lépp lu mu dige woon jéem na ci dara euh, ñu ko ciy gërëm di ko sant bon ñun jëm jàpp jëm nañ ko jàppale ci li ñu mën mais su fekkoon ni moom amul décision wu liggéey liggéey bi tamit duñ ci duñ ko ci apporter lu bëri donc tout le mérite peut-être du revient euh, docteur Gaye di la remercier tamit en tant que médecin chef du centre yaa ngi euh, insufflé benn politique bu baax donc euh, je pense que centre de santé municipal ci kanam lay bu bu santé municipale Grand Yoff vraiment référence la ñëpp xam nañ ko ñu bari fi dañu jógee fu dul commune bi jógee Dakar bi yëpp di fi ñëw ça veut dire que du bon travail est en train d'être fait encore une fois li ma doon jële parole bi surtout mënoon naa ko bay jël témoignage rek la woon ci li ma bokk moom commune bi liggéey ci le reste moom moo mën politique bi boobaat léegi dana dellu si ci lu gën a yaatu waxal leen loolu lépp en tout cas maa ngi remercier waat encore une fois fondation bi 221 bi ñu jagleel matériel bi di nuyuwaat partenaire yi fi daje yëpp tey jërëjëf. maire bi ñu ngi lay nuyu au nom du district ñu fi teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu au nom du district ñun ñu ngi lay remercier au nom du médecin chef action yi ngay mëne pour santé bi gis nañ ne chaque fois yaa ngi ci ginnaaw santé bi di def ay action di indi des matériel di aider poste de santé Grand Yoff et ak poste de ak centre de santé Sami. fii nek district quatre communes regroupées commune de Grand Yoff commune de Padoa, commune de Camberen, ak commune de Parcelles Assainies si commune de Grand Yoff bien la ci biir district mais li ngay def yëpp gis ko au nom du médecin chef ni ngi remercier di remercier partenaires que action yi ngay def gis nañ ko lool mi ngi population bi nous ngi ñu ngi bu nous faju dinañ mën faju ci condition yu au nom de médecin nous ñu ngi lay remercier bu baax a baax commune bi notre objectif c'était de bâtir un Grand lieu viable compétitif et attractif mais dans le domaine de la santé d'abord la raison pour laquelle notre première sortie c'était d'aller ouvrir le poste de santé végétal Pato donc jusqu'à présent nous ngi continuer di def ay jéego en tout cas merci beaucoup gis nañ li def dégg nañ li nga wax aussi ñu ngi lay jégalu bu baax a baax a baax daal jégalu suñu sa kilifa yi que peut-être nawet bi moo ñu xawoon tëj rek moo tax ñu yéex a joxe matériel mais nekk suñu volonté ñu leen koy jégalu nous vous présentons toutes nos excuses par rapport ak quoi boobu am voilà au-delà de ça je remercie aussi la présence de de la présence du médecin chef du district docteur Si donc au nom de la population aussi ñu ngi fidèle encore suñu engagement, détermination pour travailler en parfaite collaboration avec le district Nord, qui regroupe les quatre communes comme Après ça, je remercie vraiment nos délégués de quartier et les imams et les badjounougor. Parce que nous avons fait d'ara sans yin. Les délégués de quartier sont nous Et tout le temps, vous nous convoquez à 9h, ils sont là à 9h. Ce qui veut dire que nous, les enfants, nous devons nous comportement. On devait démarrer la cérémonie à 10 h mais on a démarré à 11 h 15 11h30. 1h30 de temps. Je pense que nous avons que nous avons fait. Donc, si nous avons fait, nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait. Nous avons fait que nous avons fait. Nous avons fait que nous avons fait. Nous avons Parce que si vous long, c'est que grand avons fait que nous avons Si nous avez fait santé, vous êtes toujours présents. Nous avons que nous avons fait. Nous que nous ba tey li ñu bëgg a def yëpp ci ñu ko def donc vraiment merci beaucoup yàlla yàlla gën leen taxawal parce que gis nañu ñàkk yi rek ñu population yi bañoon Mais mais seen engagement C'est tribunal moo grand effort yëpp ñu ngi ci c'est parce que nous am volonté pour ñu en tout cas merci beaucoup mais je vais terminer maintenant le remerciement au conseil municipal c'est le tour docteur Sarr qui est le président de cette commission je remercie l'ensemble des conseils municipaux. Le conseil municipal de Grand Yoff est am du n'est que quelqu'un au devant pour coordonner les actions et les activités mais c'est le conseil municipal qui décide qui fait des délibérations qui vote les budgets pour que le maire puisse les exécuter donc sincèrement nous remercie tous les tout le bilan qu'on a c'est le bilan du conseil municipal ce n'est pas le bilan du maire de Grand Yoff mais c'est le bilan du conseil municipal de Grand Yoff parce que sans le conseil municipal le maire ne mënul def pas. ça la vérité lu nous am ce nous mën tey def Grand Yoff ba santé bi c'est parce qu'on a un conseil qui est mature qui a ramené le plus muy c'est là, c'est l'intérêt de peuple. vraiment merci beaucoup ñu leen sant ñu vous di gërëm yàlla de defal ñu du moins, mais par rapport au SEMI on a fait une subvention de 2 millions pour semis. On n'a subventionner par, par, secteur, semi HLM Grand Yoff, semi Grand Yoff 2, mais on a une situation globale de 2 millions de francs CFA au niveau du département Dakar, au niveau de la, commune de Grand Yoff. Mais xam ngeen ñun li mën rek faire des engagements et des mandatements maintenant ce qui reste à faire maintenant c'est le payeur moo war et livrer donc je pense que dinañ jot on a fait l'engagement depuis ça fait presque 6 mois ou 1 an il faut demander à M. le maire de Mbaye bon fan lañ par rapport à ça benen bi nous, ñun suñu projet si Grand Yoff bu gën am motivation pour santé bi avancer parce qu'on a un médecin chef pour xamné mom tamit xalaatam yeb moy naka la Grand Yoff docteur Gueye je vous remercie je remercie l'ensemble du personnel médical de la commune de Grand M. le maire euh, je vous ci yow ah ci euh, remerciement yi donc ma remercie d'abord sama camarade délégué de quartier yi waroon naa jëkke sax ci bàjjanu gox yi ah boole kook euh, dëkkandoo yi mbokk yi ak waa surtout euh, les conseils municipaux c'est ça. ak euh, fondation 221 Hein? donc monsieur le maire dama lay nuyu ci turu suñu président Moustapha Diop di sa waajur dafa na xamante ngeen bu baax te loolu yàgg na bu fi newul tey xam nga ne du coobareem bu sañoon mooy téye micro bi wax waaw bi mu ñëw nag nee na ma ne naa la gërëmal bu baax a baax gërëm googu nag yemul ci moom rek du moom rek moo koy wax mais délégué de quartier yëpp kontaan nañu sa liggéey ñoo ne ma wax la ko parce que cérémonie bii ñu fi indi tey yàggul lool man président Diop Moustapha Diop Mamadou si ñëw nañ sa bureau di waxtaan leneen moo ñu fi indiwoon waxtaan fi mu mujj mooy ci lii nga ne ñu sa mébét mooy fexe ba distribuer affaire bi mu gën a gaawee waaye dafa am ay talof ci biir soxla ñu di ko waxee fii waaw te loolu ba waxee tontu nañ la ci ne la ñu ci mën a jàppandi loolu day guddal wax bref xam nañ daal sa yéene weesu na fii te du kanam ñëpp mën a seede kon dañ ci kontaan bañ ci pare jox nga caabi ji sa euh, secrétaire bi mu ubbi visite lii yëpp gis nañ ko fa defe naa am na lu des ci biir donc pour dire que yow sa yéene ëpp na lii loolu xam nañ kon nag ñu lay gërëm ci loolu parce que affaire lu jëmal santé dafa di lu am solo ci population kon nag boo amee maire mu jublu ci loolu def ko euh, euh, muy farata ci moom kon doo mën lu dul encouragé ko loolu moo tax ma ne nañ la gërëm gërëm bu baax a baax ci turu président bi waaw parce que couve ku euh, matériel couveuse yi ma soxlu sax may lim wax nañ ko fi

Il y a des i qui ak machin machin toppatoo soxla nit ñi lolu tax na xëy nga au second degré mais ngeen yalla bu li wesso nga jàppali ci lolu délégué de ak de santé pour le bonheur de tout Grand Yoff maa lay gërëm di la santé di la ñaanal jamm yalla ñu yalla defal jamm de la commune de Grand Yoff mesdames messieurs les maires autorités administratives religieuses et coutumières distingués invités honorable assistance c'est avec un grand plaisir que l'ONG Fondation 221 vient à Grand pour effectuer un don de matériel et consommables médicaux d'une valeur de 360 millions 35 200 francs CFA. Ce matériel est composé entre autres de matériel de laboratoire, de matériel chirurgical, d'équipements de réanimation, matériel d'orthopédie, d'une machine d'échographie de dernière génération, des blouses de protection contre la COVID, des masques, des gants et du divers consommables. Aujourd'hui, dans le cadre d'un partenariat entre la mairie de Grand York et l'ONG Fondation 221, ce matériel est offert pour rehausser le plateau médical des structures sanitaires de la commune. Chers invités, cette, cette cérémonie est l'occasion pour nous de rappeler que depuis sa création, L'ONG Fondation 221 a fait d'importantes réalisations, notamment dans la campagne de lutte contre la faim à travers ses activités saisonnières. Dans le domaine de l'addiction d'eau, avec le forage d'une trentaine de puits modernes à Dakar et dans les zones rurales. Dans le volet de la santé, de 2018 à 2020, notre ONG a injecté plus de 10 milliards en matériel médical et consommable au Sénégal. En ce qui concerne la petite enfance, la Fondation prend en charge plus de 100 orphelins. Avec son institut mobile de leadership, nous avons octroyé plus de 174 bourses de formation professionnelle et nous sommes toujours en train de continuer à former des jeunes leaders. Je souhaite aussi profiter de cette occasion pour féliciter l'ensemble des volontaires de la Fondation 221 au nom du président Mouché Moussagnan. Cependant, dans cette euh, période de crise sanitaire, nous déplorons le fait que le don composé en grande partie de matériel de protection commune ne soit pas distribué à temps dû à des lenteurs accusées par les éléments de la municipalité. Nous vous prions de veiller à ce que de tels impairs puissent être pris en compte dans le cadre de notre collaboration. Chers invités, la Fondation 221, c'est le volontariat du cœur à l'action. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc, nous sommes monsieur le maire de la commune de Grand York, euh, nous monsieur le maire, autorités. donc nous remercier toute l'assistance. Euh, li ñu dajale fii tey remise de dons matériel médical et consommable boo xam ni mi ngi toll ci 360 millions 35 200 francs donc matériel bi li ci nekk donc pour nous ñu citer tuuti rek am na matériel laboratoire am na matériel chirurgicaux am na matériel d'équipement de réanimation am na aussi euh, des euh, gants des masques des blouses de protection contre la Covid parce que nous avons un instant bi ak masque bi dinañ ko soxla am aussi euh, une machine d'échographie boo xam ci bu mucc la dernière génération donc aussi partenariat bi ñu boole ak mairie Grand Yoff tax na ñu ngi am benn centre de dialyse boo xam ne ñu ngi ko bëgg a installé ñu ngi ci nekk di ci discuter ak maire bi incha allah balaa yàgg dina nekk en place comme ni ko monsieur le médecin chef waxee léegi askan bi yëpp dina ci mën a bénéficier wu. donc di leen wax ni Fondation 221 euh, benn ONG non gouvernemental la boo xam ne ñu ko créé depuis 2014 aux États-Unis mais nag ñu ngi commencé suñuy activité fii ci Sénégal depuis 2016 boobaak léegi ci domaine de la santé dugal nañ ci 2018 ba 2021 valeur bu toll ci 10 milliards ci équipement ak consommable ñu ngi aussi yëngatu ci adduction d'eau maanaam dañuy defar ay teen ak ay pompe manuelle ci Dakar ak yenn gox goxaan yi nga xam ni dañ ko soxla surtout àll yi aussi dañu am euh, benn volet boo xam ni petite enfance la moom mooy gérer ndaw yi nga xam ni dañoo ñàkk seen yaay seen papa wala benn ci seen i waajur donc dañu leen di jël en charge chaque mois dañu leen di jox montant boo xam ne dina leen permettre ñu mën a euh, gérer lu mu ndaw ndaw seen njàng seen sol seen lekk ak leneen ak leneen donc ASSU yi am nañ institut mobile de leadership institut mobile bi ci côté éducation la dañuy former ay jeunes ñu nekk seen i gox ñu jàppale leen ba nga xam ne ñoom dinañ mën a nekk ay leader di jàppale seen askan te duñu xaar dara en retour wala ñuy xaar état bi di def parce que xam nañu fii au Sénégal dañu am boobu habitude ñun nag dañu bëgg a xeex loolu comme ni ngeen ko gisee sama naataangoo yi ma àndal ñu ngi ci ginnaaw ay volontaire la ñoom ñëpp fondation 221 moo leen tax a jug pour liggéey rien que pour jàppale seen askan te kenn fayu leen ci dara aussi am nañ euh, beneen volet boo xam ni donc mi ngi nekk euh, je promotion volontariat c'est un am na rapport ak institut mobile bi parce que toujours li ko tax a jug rek mooy jàppale askan bi di def te yàlla tax donc may profité ci occasion bi aussi di sant membre yi parce que ay xale lañ yoo xam ne dañu engagé déterminé ci turu président aussi laa leen di sante muy monsieur ingénieur financier la boo xam ne Ford la nekk aux États-Unis nekk aussi doomu HLM Grand Yoff parce que fii la juddoo au Sénégal fii la ba dem États-Unis xam ne tamit Euh, Sénégal soxla na ndimbal tax muy ciy jàpp chaque jour di indi lu am pour tey ñu mën a jàppale askan bu mën di doon donc di ñaan tamit euh, ñu gën a farlu ci suñuy partenariat entre mairie Grand parce que xam nañ ni euh, matériel bi yàgg na fi yéex nañ ko joxe te instant bi yooyu ñu ci nekk loo xam ne commune bi da dañu ci mën a jàppale pour ñu xeex ko tax na yeexoon nañ ko du surveiller mais ñoo yaakaar ni ci prochaine échéance yi ñuy jëm moo ci mën a liggéey yéen nous notre ambition c'est toujours d'accompagner les populations dans le cadre sanitaire et de rehausser le plateau médical de nos instituts sanitaires nous sommes dans ce dans ce cadre nous sommes dans cette phase pour augmenter les équipements et les matériels médicaux dans les postes de santé on est très content et très fiers et nous, en tant que maire et conseil municipal, je remercie la Fondation et remercie aussi les populations qui nous ont fait confiance pour qu'on puisse diriger ce, ce, ces municipalités pendant sept ans. Je remercie tout le monde et dire à la Fondation 2021 espérons que les, cette collaboration va continuer sur d'autres projets. On a un projet de centre de dialyse de 12 machines, et aussi entre nous et la Fondation. Et la commune a un projet particulièrement pour ouvrir un centre de consultation en cardiologie. Donc tout ça, on le fait pour la population, c'est notre devoir de le faire. Inch'Allah, j'espère au bout peu de temps, nous verrons les choses se, se terminent bien. Tcholof. Tcholof, tcholof, tcholof. Pardon, hein? Non, c'est des méthodes de à la population et poste de santé.

parce que gis nañ ne ñu bari am nañ problème mu cardiaque te dafa cher faj vraiment bu ko amé fi Grand Yoff na permettre ñu bari ñu nekk Grand Yoff en faveur dina mën a faj facile waaw sant yalla bu baax a ba ñaan yalla mu continuer ko. de Grand Yoff plus précisément à la mairie donc pour un don de matériel médical d'une valeur de 360 millions 35 200 francs composé de consommables et d'équipements. Donc ce matériel est composé de lits d'hôpitaux, des blouses de protection Covid, des gants, des masques, des matériels d'orthopédie, des matériels de réanimation, d'une machine d'échographie de, dernière génération, donc aussi euh, du matériel d'échographie. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de, choses qui peuvent intéresser les, les postes de santé les structures. La valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 360 millions 35 200 francs CFA. Donc nous sommes en partenariat avec euh, la mairie de Grand-Yoff pour euh, euh, la construction d'un centre de dialyse composé de 12, machines. Parce que nous savons qu'au Sénégal, euh, c'est un peu pénible de se soigner vu que le coût est trop élevé. C'est ce qui fait que nous avons voulu faire cela avec la mairie de Grand York. Aussi, je dirais que la Fondation 221 est une ONG non gouvernementale qui a été créée depuis 2014 aux États-Unis. Mais nous avons commencé nos activités au Sénégal depuis 2016 et nous sommes dans plusieurs volets à savoir le volet de la santé qui nous réunit ici aujourd'hui. On a eu à injecter au Sénégal une valeur de 10 milliards et quelques, juste en équipement et consommable. Il y a aussi des activités saisonnières qu'on est en train de mener dans, au niveau de la Tabaski, Qualité, Ramadan. Il y a aussi les inondations, des fois on réagit, comme l'année dernière on était à Kermassar, à Mbao et dans certaines zones. Aussi on a un volet petite enfance. Pour ce qui est de la petite enfance, on prend en charge des orphelins Actuellement, on est à plus de 100 orphelins qui sont pris en charge au Sénégal dans des zones comme Dakar, Touba, Mbake, Fatik, Kaoulak, euh, Gossas et il y a aussi d'autres zones reculées du Sénégal. Mais nous ne comptons pas s'arrêter là. On veut aussi aller au-delà des, 100 qu'on a et avoir même plus que ça. On a aussi un volet éducation. C'est le côté donc leadership. On sait qu'au Sénégal, les gens n'ont pas l'habitude de faire des choses sans pour autant être payés en retour. Nous, Fondation 221, on est des volontaires. Comme vous avez vu, euh, tous les membres qui sont là aujourd'hui n'ont pas été payés. À chaque fois, on est dans le terrain en train de faire des, des choses pour notre commune. Et on s'est dit aussi qu'on va former d'autres jeunes leaders pour qu'ils puissent euh, aussi demain aider leur communauté. Donc, euh, bon, c'est pas seulement Grand nous on est partout. Je peux dire qu'à euh, Dakar, on a été partout. On a été au SAMI municipal, on a été à l'hôpital Diamniadio, euh, donc l'hôpital enfant pour Diamniadio. On a été à Albert Royer. Donc, nous avons été à Tiwawon, Touba, Kedougou, Salemata, on a été à Bindona. Récemment, nous avons été à Bunkuling, dans la région de Sédou. Saint-Louis aussi, on est allé deux fois là-bas parce qu'on a été à l'hôpital général. Après, on est reparti aussi au centre de santé. Donc, nous sommes installés aussi en Côte d'Ivoire et au Mali. Donc, on a d'autres sections Fondation 221 dans ces zones. Donc le choix n'est pas fortuit parce que nous, c'est juste pour aider les populations sénégalaises que nous sommes là aujourd'hui. Donc euh, voilà. bon man maa ngi tudd Fatim Mbaye la fi Fondation 221 di wax ci turu suñu président Moussa Niang euh, tey nag li ñu fi Benne euh, remise de dons matériel médical La valeur bi mi 360 millions 35 200 francs CFA donc matériel bi li ci nek y na des machine échographie dernière génération des consommables chirurgicaux des orthopédies, orthopédie réanimations, des réanimation amna ay gants ay blouses, ay blouses de protection Covid ay masques, ay consommables bari na donc pour ñu lim lolu rek té aussi ñi ngi nek le centre de dialyse nous xamni 12 nañ ko fi def machines pour que nit ñi faire di faju ci lu mucc ayib té du cher ci parce que yombul timit pour ñu mën di fondation 221 nag ñu ngi ko créé 2014 mais fii ci Sénégal 2016 dañ commencé di si yëngatu boobaak léegi domaine santé indi nañ fi lu toll si 10 milliards et quelques donc bu dee ni aussi activité yi ñuy def tabaski korité ramadan ak inondation yi dañuy joxe ay kits alimentaires chaque année loolu moom activité la yoo xam ne duñu ko duñu ko manqué benn yoon ñoo ngi aussi si côté xale yi nga xam ne ay jirim lañ dañu ñàkk seen yaay seen papa wala seen ñaari waajur dañ leen di dimbali chaque weer ñu jox leen benn somme boo xam ni dina tax ñu mën ci euh, def lépp li nga xam moom lañ bëgg muy seen jàng seen solu seen lekk ak bu ñu feebaree di leen taxawu donc euh, mën naa ni fondation bi ci li muy yëngu bëri na donc mais yooyu moo ciy gën a fees